dal leen ak jàmm soxna Aida Diallo moo porté plainte benn cantaakun loolee la ko waral moo di soxna si dafa jàpp ni waa ji dafa yëkkati ay kàddu yu ñaaw boole ci ak ay menaces de mort teg ko ci deram bu ñu sukkandikoo ci l'observateur moom mi joxe nouvelle bi taalibe Cheikh Béthio Thioune bi démb daanaka ca division des investigations criminelles fa la ñu ko doon laaj ca mbir moomee moom cantaakun bi dañ abrégé turam PN dafa yëkkati ay enregistrement sonore ak vidéo di ca yëkkati kàddu yu ñaaw jëmale ko ci soxna Aïda Diallo waaye yamu ca dacee boole ay menace de mort bu ñu sukkandikoo ba tey ci yéenekaayu groupe Futurs média gi waa ji mujjee na ñibbi ca këram ginnaaw ba mu weddee ba mu seet wecci tuuma yi nga xamante ni moom la soxna Aïda jàlloo teg ci kawam